ba pare jël la wax ak yow. caw Pawlish nag su ñu ñëwee point yu bëriwul situation réew bi la rek li gis fan yëpp ci dëkk bi ñu bàyyi la nga développé. waaw xam nga tey bii mooy bii mooy suñu premier jàkkaarloo. waaw tey jii. waaw ba ñu jii bii mooy suñu premier dëgg la li ko waral muy Sénégal li ko waral muy jàmm li ko waral muy jàmm ci ab réew. dëgg la moo moo nga jàkkaarloo ngay sénégalais bay sénégalais ñu bëgg réew mi am jàmm waaw réew mi am am bu wér a wér boo wax tey ñu jàkkaarloo di waxtaan ci réew mi léegi loo ma laaj réew mi daal wax ci réew mi lan na léegi baa nga nekk journaliste ma laaj man ma lay tontu. aja léegi li lay laaj mooy gis nañu kii di Ousmane Sonko. waaw Adji Sarr koo tuumal affaire de viol. ñu dem woote tribunal. ah aji Sarr def ay test. test yi mhm. wane na am na ko bàyyi mànn yu te ba mu fay dem moom moom kese àndoon te ñaari góor a fa nekkoon. Ousmane Sonko ak jëkkëru Ndeye Khady Ndiaye léegi ñu wolo ko pour mu def test ADN mu ne mom du def test ADN manam mom nangul wuy ji justice te nangul dem hôpital tamit pour ñu defal ko test Adji Sarr mom def na limu warona def ci côté léegi nak mu créer situation bu bari tel mom lim koy faje mhm. toujours moy kay leen ñu xex genn leen dan ma bëgg fa gagal nan nga jangate situation bobu wa xam nga affaire sexe dafa xaw doy war wa man duma du ma gyné du ma gynéco du ma césarienne du ma opéré affaire sexe ma ci wax lu baax. Hmm. waaw mënu ma ci wax lenn mais affaire réew mi laay wax. waaw affaire ñëwal kon ci affaire réew mi. mais Adji ak Sonko. waaw. ñaari doomu sénégalais lañ. waaw. ci kenn laa njëkke muy Ousmane Sonko. waaw. bu la àddina bëggee réew bëgg la àddina bépp bëgg la xale yëpp bëgg la. ah dafa am nooy doxee. yow boo wootee boo wootee xeex ñëppay génn xeex. waaw soo wootee tëgg ay bool ñëppay génn tëgg ay bool. soo wootee ne suba kaa leen togg ceebu jën kër gu ne nañ togg ceebu jën ci mim réew ñëppay togg ceebu jën. yow yow mi di leader yow yaay génn def discours ne kaa ñu woote jàmm parce que jàmm moo baax ci réew. te ak ak lu mënti doon ci àdduna Macky Sall mooy président am. waaw ak lu lu mu mënti nekk ci àddunaam Macky Sall bu waxoon ñëpp tëdd ñëpp tëdd parce que ñun ñepp moy suñu jitt deug la dé len la condamné muy lan muy ñun suñu jeunesse xalé yi toll ni ñun xalé yi mel ni ñun xalé yi dëkk bi dëkku xalé la xalé ko yor. suñu papa yi seen walu wayna ñun ñoko wara yor mais yor bi du ay xex du sanante pak du jamante pak parce que Sonko bi dina lo mi ngi teud kërëm bu dé Macky Sall gi xex lo mi ngi teud kërëm tege gi teud sa kër. waaw mosoo gi Macky Sall yore xex na day xex waaw muso gi doomu Sonko yore xeex ne day xeex léegi nag lenn bu ci amee nga xam ne moom moom la xale yi bëgg moo moo war a moo war a yore yow moo war a war yor loo xam ne ah dëkk bi kat dëkku jàmbur la dëkk Macky Sall la amaana ne ko groupe président Macky Sall la fi yàlla teg Macky Sall moo fi nekk ku ne am na droit fo ku ne am na droit far fi la neex ku ne am na droit wax li la neex ku ne am na droit jëf li la neex ku nekk ka nga far mais ni ñu koy faree ñu faree ko personnalité faree ko fulla faree ko diiñ faree ko jom Adamo xale yaa ngi dee rek. waaw nit ñaa ngi dee te moom doomam ji ngi di soxee bu Sonko euh, mardi bii passé ci procès bi la koy daggal bee ba jël tab Portugal instant bi ma nga Portugal. moo moo tax xale yi ndaw yi war a yeewu. te ñoom ñuy xeex yëpp amuñu carte amuñu passeport pour génne réew mi day gën a sonn te amul kenn kenn kuy xeex ba Macky Sall ñëw seet ci la wala Sonko ñëw seer ci la du kenn Adamo la lan moo gën a bon ci àddina nga nekk xale bu ndaw a ndaw nga nekk yow nga nekk ka social. juddoo ci famille bu ñàkk nga ñàkk di xeexal koo xam ne wala ngay xeexal ñoo xam ne tey xeex bi du xeexu diine. xeex bi du xeexu al alxuraan xeex bi du du du xeexu jàkka xeexu sa bakkan rek lañ ko teg seen bakkan tey ku ci nekk président tey barki salaatu al nabi bu buñ demee deux ans bu soo ñu defaan la lii loolu de dëgg la te ku ci te ku ci dee aadama munoo fexe fexe fexe fexe fexe ba ba yàlla du la làkk munoo fexe ba ba doonam safara loolu mënut a ñàkk moom ndax lii lii nekkul jixaad lii xeexu àdduna la te en plus xeexu sexe la xeexu sexe munoo ci embarqué munoo ci am lu neex munoo ci am loo xam ne neex na diine parce que xeexu sexe la du xeexu diine du xeexu alxuraan du xeexu lenn xeex koo xam ne sababa nekkul nguur sa yaay nekkul nguur xoole ku ci jàpp sa àdduna mooy yàqu sa yaay sa yaay àdduna moo boo nekkee benn doom yow nga nekk benn doomu aadama sa yaay yaakaar la nga ne nga xeexal sa réew xoolal sama xarit bi sama xarit bi ah, xool sama xarit bi yàq ah, ah, awraam bi yàqu ni aadamo man woo naa di la nettali awra awra bi ba xam nga cee ketal nga ne ma Pawlish xale buy xeex ba yàq sa awra du ma bu nekkoon ko feebar hôpital du ma ko yow loolu yow laa a wax ne la aadamo bi awraam bi yàqu na pour nga dimbale ko nga ketal ko ba ma ko waxee ma ne la du ma ket ci koy nga ne dëgg la de mais pour lan moo lay déranger yow ci Ousmane Sonko Ousmane Sonko warul di jël jeunesse bi tamit di leen dajale di leen xeex loolu naa leen génn leen xeex Pawlish Mbaye génn leen rayante waaye ñëwal ci lii waaye nga bàyyi say yi lii yi gaa yi dafa war a sérieux mais danga maa waaw waaw dafa war a sérieux waaw Adamo nga ni allez vas-y allez vas-y répète Ousmane Sonko ak lu mu mën a xew. warul woo ay nit naan leen génn leen ma def carnaval de la liberté ñu jaar fee xeex jël ay nit jaar fële xeex jël ay nit léegi nag pour pour borom réew mi sécuriser réew mais c'est normal ñu mm. jël Ousmane Sonko yóbbu ko këram kenn defu ko lu métti. nit nit bu amee tur. waaw. su wootee añ ñëpp dem añi su wootee xëdd ñëpp dem xëddi su wootee caravane am na droit wootee caravane mais ah, mais moom ni mu moom fi mu toll ak ni mel war waru génn ci dëkk naan day def caravane. waaw te amul autorisation. bu dee amu ko waru koo def. amul autorisation. xam nga kenn bañul mu def euh, li nga xam ne moom mooy carnaval de la liberté mais article quatre-vingt-seize procédure code pénal def ne képp kuy créer boucan wala di def ay embouteillage ci yoon bi tey jii Pawlish bay boo feebaroon ñu war laa dugal ci ambulance nga war a dem urgence. boo fa fekkee wala ay ay da ngay dee da ngay dee da ngay dee da da ngay dee ki ki ki woote carnaval moomu réew mi da da ngay de waaw da ngay de loolu la def waaw mais moom nag bu ko yàlla jiitalee na xam ne ay ndaw yi dañ ko bëgg mu toog këram rek la jàpp ñaamuram ba la première ñu xool lu ñuy def bu dee dañ ko àtte ci dëgg ñu àtte ko bu dee dañ ko àtte loo xam ne du yoon ñu xam ne du yoon mais le premier yàggul moom mii mooy jiitub réew te nit ñi te te moom dafa am benn pex dafa am benn benn benn benn benn fubu bu ko suñu borom may moo bayre ci àddina bula yàlla mayee bayre bula yàlla mayee boo wax loo nit ñi def ko kon am na yu baree bari ci àddina nguur de yenn yi xale yaa ngi aadamo xale yaa ngi dee rek aadamo aadamo nit ñaa ngi dee normal aadamo nit ñaa ngi dee normal xale yaa ngi dee kon weñ te boroomi fital du xeex boroomi xeer aadamo ni ñaa ngi dee normal xoolal sëmi ci mbedd boo leen rombee aadamo yow boo nekkoon Dakar da ngay jooy da jooy rek waaw dëgg la de dama dama la gis léegi nga def ay discours léegi ma ma mhm. ma ma téye woon ko dencoon ko mais damaa bëgg ñu déglu loolu discours yooyu tuuti après ñëwaat ci laaj parce que dafa am dama laa gisoon léegi nga def benn sortie damaa bëggoon ñu déglu sortie bi bala ñoo ñëwaat ci affaire yi. ah allo. da waaw dama laa gisoon nga def benn sortie dama bëggoon ñu tegal gaa yi sortie yi ñu déglu sortie yi bala ñoo ñëwaat ci question yi ñu wan ne Pawlish Mbaye li mu wax tey nii moom la répété waat la même chose la waxaat. Uh-huh. aca gars yi ñu déglu alaaji Pawlish Mbaye mu sell mi li mu waxoon xaw ma li fi bëriwul ay kër la xaw ma wala li fi amul ay kër yu bëri la xaw ma mais dafa bëgg dëkk bi tàkk sérieusement nag bu dëgg neexee yàlla xam nga man man aw ma jotu politique mais damay wax li ma xam ak li ma gis ak li ma fekkee ñun ay ndaw lañ ay xale lañ dëkk baa ngi yàqu te dëkk bi dëkk bi day gën a yàqu ñetti at coolu sexe na koo yàq coolu sexe na koo yàq ci ñetti at ñett xam nga man sax yàlla dafa ne du ma gynécologue du ma gynéco du ma césarienne xaw ma daraay hôpital xaw ma ki nit koy accouché xaw ma bay wax ci affaire sexe parce que xaw ma ci lu bari mais am naa droit wax ni dëkk bi dina tàkk te moom mi ngi koy taal taal lan moo gën a nekk noobul nga juy nga jigéen soor taala soor nak ñëw ba sa kër jàpp sa njàmbur mais boo wootee ñëpp màbb te xale yi dañ ko bëgg te bu la bu la xale yi bokk ci koofaa bi ay rakki jabar boo ko bokk ci koofaa bi ay rakki papaam boo ko bokk ci koofaa bi ay tontom bokkuñu ci ñu ne famille Ousmane Sonko moo yore xeet di sànni xam ne ay cas social lañ ñoo ne amuñu seen kër yi boobu bu ngelaw ëppee mu daanu ñi ñàkk te ñi koy xeexal amuñu carte électeur ñi xeex ñi xeex amuñu carte électeur te intelligent bi intelligent bi toj bitik fo am or lañuy toj fo am telephone fo am Auchan ay sacc lañ sacc mën tawé su nga romb bitiku pël photo yi rombu dem Auchan Auchan lépp fa amna am na ba am bi nga bëgg koo yàq bëgg koo yàqee suñu dëkk am na Auchan ay Sénégal yu fay liggéey amna ñoo xam bayina bàyyi dootuñu liggéey ci adnam parce que amna fu ñu wëru ci àddina Auchan bi da leen di dimbali xale yi nañ delloo seen xel ci yàlla ñi ngeen di xeexal ñëpp ñëpp ñëpp bu guddi jotee ñi ngi tëdd seeni i kawlal di raay seen biir di waxtaan bébé comment vas-tu defal ma tee bébé eh, defal ma yaawur fon na li mu gën a bëgg ay ah, bébé s'il te plaît wutal dugub bi defal ma beñe dugub ay beñe dugub wutal beñe dugub àdduna nit boo nekkee ci àddina da ngay da yi intelligent ñun xale yi xale xale du xeexee ak état xalé du xex a nguur am na ñuy état yi yëpp ñu bari am na nekk bi ci billahi ñu ñoo yor société yi ñu xex état mo parce que état mo yor ci lepp ci aduna lan dañ ne manifestation yi wala ci dee direct dem ak ku ci bu dé do dem safara fi ndaw ci yalla bu ma pour ñu bañu guddal paulis mbay loolu la waxon té fokk na ci la waaw la baye nga nga. léegi soo soo gisee wax loolu. waaw mun nga xam ne Macky Sall gi liggéey. waaw Macky Sall mi ngi defar réew mi. waaw Ado Macky Sall mi ngi defar réew mi Ado xool Macky Sall xool Macky Sall ba mu ba mu mosoo ko gis mu tontu. waaw waaw mosoo gis mosoo gis Macky Sall wax. ku ne am na droit la nag fa far ay xale la ñun am nañ droit far fu ñu neex ku ne am na droit far fu la neex ku ne am na droit far fi la jig ku ne am na droit far yow fi la arrangé parce que nguuru Macky Sall ci la amee lépp ci la tukkee ci la suñu borom di ma am naa droit far fi ma neex parce que citoyen la bu voté jotee damay jot voté. dëgg la dëgg la. xoolal xoolal xoolal xoolal euh, Macky Sall li mu def jam ñaajo. waaw liggéey na de. liggéey na réew mi te damay wax lenn damay sànni Pape Modou Fall. Ah. bo Adamo li li muy liggéey li muy liggéey ci ci ci sàll Sall musuma gis kenn kuy liggéey ci moom ci Macky Sall ci àddina. dëgg la de non laaj jo mooy directeur mooy directeur mooy directeur de bëri na ay jàmbaaru Macky Sall Lat Diop jàmbaar la Dodo Gueye jàmbaar la ñu bëri ay jàmbaar lanu ay liggéeykat lanu. yaa ngi comprendre waaw ñi muy ñi muy liggéeyal moo l'emploi xoola ku baax la ku sincère la ku bëgg Macky Sall Macky Sall amoon ñeenti yu ne moom. àdduna baax àdduna neex parce que ak xale yu liggéey yëpp mu ngi leen wutal liggéey léegi da nga bëgg Macky Sall def mi ngi mi ngi créé ay société mi ngi créé xale yi liggéey mais xale yi ñoo bëggul liggéey xale yi ñoo bëgg ay xeex ñoo bëgg ay songo toj Auchan yi yàq Auchan yi te xale yi nag du duñu toj bitik bitik ba fuutee xale yi duñu ko toj xale yi duñ teg duñ toj fu jaay plaqué fu jaay or lañuy visé Auchan ceeb bi gisoo gisoo maire bi gisoo maire bi li ko dal xanaa gisoo meer meer bi lu ko dal. dëgg la de. mais Rokhaya Diop xanaa ko dal. gis naa ko rek ñu koy wax nii ci internet bi. xoolal meer bi dafa dugg o mhm. jaa di Auchan toj ñu toj Auchan mu jaawale ay ni kenn jël ay ni naan ay ni kon kooku dee léegi mairie foo foo ko fekk ci àdduna Macky danaan tous Macky rek la ñuy topp loo ko wax ci àdduna Macky Macky ah mi ngi albani ci rond-point bi maire bi dafa jaawale boisson bi la jaawale ak Heineken naan Heineken Heineken la naan àddunaam dafa yàqu loo ko wax mu ne tous police Macky la ñuy topp Macky rek euh, Macky rek la ñuy topp ma ne kii xool àddunaam yàqu na. dafa am lu ma la bëggoon a laaj mooy verdict bi le premier lan nga ciy xaar yow ci verdict bi le premier. lu ma ciy xaar. waaw lan laa ciy xaar waaw. Sénégal am jàmm nit ñi am jàmm. waaw lu wax nit ñi xam ni mooy loolu. waaw bu dee Sonko moo tooñ ñu ne Sonko moo tooñ bu dee Adji Sarr moo tooñ ñu xam Adji Sarr moo tooñ te Adji Sarr moom it mu téye làmmiñam. réglé ndax nag coow lii du coowu àdduna la coowu état la ba ci ay bakkan du ci tuuru war na xam boppam xam moom mooy kan. réglé coowu état de coowu ñaari citoyen la. ñaari citoyen sénégalais la léegi ba ay bakkante ci doot kon moom moo war a toog régler xam ni moom mii day am jëkkër Dakar mun am jëkkër Sénégal mun am jëkkër Libi mun am jëkkër fu ne ci àdduna waaw est-ce que tamit Sonko tamit war na dànkasante jigéen taxaw naan jigéen dàngin mu gën di la tontu loolu tamit faaw ñu wax ko dëgg moom dëgg rek lay mujj déggoo moom dafa am la ko suñu borom may mu nekk mu nekk kilifa uh-huh. kilifa day moto tontontu jigéen te en plus moo moo a nekk président Sénégal waaw dàngin jigéen boo ñuy dàngin mu tontu la waaw kay noonu la demee nag moo tax ñu tontu ba léegi li nga xamante jigéen booy jàng dina la tontu. mais Adamo daal li ma li ma la ci mën a xam. Hmm. Macky Sall gi liggéey réew mi. mi ngi liggéey réew mi defar na ko léegi nag. yow yow ah, lan moo tax ko yàq. déedéet mais ñu bëri amuñu carte électeur amuñu carte électeur xanaa xamoo ñu bëri xam lu leen yóbbaale xeex ñoo la yóbbaale ak sàcc osaan yi ñoo la yóbbaale de am ñu bëri Sonko nekk président amul leen njariñ Macky Sall nekk président amul leen njariñ xam leen neex tooja dafa bëri ay te sàcc yi ñoo ci ëpp waaye nekkoon bu nekkoon er, xeexu état kon ko ñu tëj bitig gi léegi nag kii di Ousmane Sonko xam nga lan la fi waxoon ay temps nee na moom jeunesse bi la yërëm parce que nee na moom bu jeunesse yi waruñoo xeexal benn homme politique wurta génn naan leen kaay leen xex ñuy xex ci koo xamante si ni doomu ma nga Canada doomu nga ma nangam comme que senegal mom lo wax ñu né ñu né ñu né ñu né Adama day wax rek mais li wax amul fu ko dama lay tegal yow nga deglu so deglu li wax ba paré ma bayyi la yow nga sand say cadeau non ngay def. ni day cadeau wa kay ju sànne ay cadeau kon. acca lan la fi Ousmane Sonko waxone mom lay xool déglul foo mënee ak foo amee doole demal bay demal gori demal def loo xam ne mën ngaa jàppale say jàpp say say waajur parce que sonn nañ ci yow demal def loo xam ne mën naa jëriñ sa askan moo gën nga ay nit di la utiliser ay politiciens su dee violence politique yoo xam ne seen doom ña nga Canada ña nga États-Unis ña nga feneen wala suñ su dee ñibbisi nañ ñu ngi ci ay grande société di liggéey di leen pousse ñoom ñuy dem dafa jot nit ñi xëppi seen bët. nga bu baax. lii la Ousmane ko wax te tey mooy woote loolu. ah Adama nag man daal xaw ma ko bëgg a wax lii. lii la la wax. mais ku mais ku bëgg a xam nga am réew boo ko bëggee jël Pawlish may da ngay wax xam nga nan ngay def boo dajalee nit ñi ba nit ñi bëri àdduna bi yëpp boo woowee ñëpp déglu la da nga naan leen bu ma jëlee réew mi courant bii fi ma ko fekk bu doyul fii laa koy yóbbu ndox mi doyul fii laa koy yóbbu euh, euh, ceeb bi doyul fii laa ko yóbbu lii doyul fii laa koy yóbbu mais dajalee nit ñi ba ñëw lan nga leen di wax dan maa bëgg a faagaagal génn leen xeex. conseil la nga dajale nit ñi amul solo ana ñu rew mi degguma ci discoursam dara lu jariñ rew mi len len lenn ne xari ci wax ji waaw aji saaro sonko lenn mooma naqari ci wax ji muy génn len xex waaw génn len xex nit nit xarfata ko morom xaram asaba nit di nitam ku ci génne xeex da ngay génne àddina boo génn àddina sa yaay ñàkk sa papa mooy ñàkk sa famille mooy ñàkk génne xeex moo nekkul nit boo nekkee leader boo nekkee leader xam-xam fi nga war a jëm te nga war a nekk président ëllëg suba génne xeex moo nekkul wax ci ci xam ne dafa war a nekk dafa war a yor président suba. waaw yéen ñu woote jàmm. il faut ñu mën a il faut ñu mën a dégg dëgg. parce que yéen ñu woote jàmm gën a neex ci àddina. waaw gis nga Sonko bu tooñee dañu koy teg ci yoon parce que tamit réew mi bàyyi Sonko moomu ko de yaayu Sonko moomu ko maamu Sonko moomu ko famille Sonko moomu ko réewum président la mu neex leen mu naqari leen président Macky Sall moo jiite ñëpp boo jalgatee loi da lay teg ci yoon yow amoo yow amoo luy wane ne am nga droit def euh, euh, euh, caravane loxo ma carnaval de la liberté nga bëgg koo def par force mais état kenn du jaayanteeg moom doole. te te te Adamo. waaw Adamo. tey lenn yow soo ñëwoon Sénégal. waaw yow di nga toog jooy. waaw Adama billaay wala maire boo ci gis mu ngi jàpp kolom jàpp boppam xam nañu doom incha allah day gaañu waaw xam nañ doom day gaañ fa force ado ah, xam mairie suñu yaay yi dañoo jeex taag man daal man daal moo dul gaañ parce que xeexlu ma ma xeex le dew ma fenn xeex mais mairie yoo ci baax na de xoolal xeex baax na de maanaam xeex ci lu am njariñ tey jii bu Sonko waxoon ne aado ah, moo Pawlish Mbaye kaay leen ñu xeex parce que ceeb bi dafa seer ma génn xeex kaay leen ñu xeex parce que diwlin dafa yokk ma génn xeex kaay leen ñu xeex parce que courant bi dafa seer ma génn xeex kaay xeex parce que hôpital yi dafa xat dañ ko war a yaatal ma génn xeex mais lan laay xeex xex boo xamante ni xeex ko personnel pour sa yow sa intérêt personnel bopp ah dan maa bëgg a yóbbu prison loo fa doon wut ca suite ba te palee ko fu fa lu la dal yaa ko yóbbee sa bopp mais jeunesse yi xeex ñoo amul bopp affaire bi loola Pawlish waaw moo tax moo tax moo tax xale yi léegi léegi leen dafa am Adamo leen dafa am muy xale yi xale yi ndaw yi bëgg a liggéey xale yi ndaw yi amul liggéey xëy ndaw yi xamuñu fu ñuy liggéey. waaw Papa Modou Fall. Hmm. directeur employé. tey directeur mi ngi jël employé lu muy joxe tey bëgg nga ko de. non non non du question ah, non Adama xam nga Adama damay wax parce que Adama damay wax dama gis ñi mu jël ñu bari ñuy liggéey. Ah, te nag lenn Macky Sall mu ubbi fa man ci man kuy nekk ci Macky Sall di ko jàppale damay wax ci yow. waaw loolu dëgg la. loolu dëgg parce que Macky Sall ah, am naa droit fi ma neex am naa droit wax neex mais damaa xam ne moom liggéey ka la liggéey ko ñor. acca acca développé la. dafa nekk liggéeykat dëkk Jurbel Jurbel dëkk Jurbel lu mu guddi guddi guddi guddee wàññeeku ñibbi Jurbel. day liggéey liggéey ko ñor liggéey ko tax ñor liggéey rek liggéey ko ñor di nekk directeur bu rëy directeur l'emploi directeur bu rëy rëy. ndaw réew mi di ci ndaw réew mi di ci liggéey léegi xale yi xeex man dinaa ko wax ne ko jimbalil xale yi gën a am liggéey mhm. pa Modou fal muy muy ku baax a baax ku seete ci li muy liggéey ku gore ci limi muy liggéey waa Diourbel xam nañ ko waa Dakar xam nañ ko muy liggéey kan normal liggéey kan xam ne tey Macky Sall ba amoon cinq yu mel na moom laaj Jóob laaj jàmbaar la laaj jàmbaar la lan kan la lan suñu borom daga sutural muy liggey mom dara ñor ko ci àdduna muy liggéeyal liggéeyal Macky Sall ko ñor mu bax bax directeur LONASE ku bax ku sincère ñett ñun boo am amoon àdduna neex. deug la kon nak na nit ñi na nit ñi xamni ne àdduna bi yeneen jàmbaar yoo xam ñi ngi ci suuf. mais ñooñu ñoom ñoom nekk ci kaw mais ay jambar deug la mais lenn da la xamni Macky Sall nga xam ne suñu borom moom la ko jiital dëkk baa ngi rafet teer baa ngi daw train yaa ngi daw xoola xoola xoola xoola xale ne université seen bourse tardé tu xale seen bourse yaa ngi ñu ngi leen fay bourse normal moom rek ma fi am moo nekk président am jabaru sénégalais ñi nekk président ay jabaru tubaab lañ am ñi ay jabaru naar ñi ay jabaru zambien moom rek ma fi am jabaru sénégalais muy sunu yaay ma rek fay sàll lenn daal laa contre ci lu ma neexul ci sénégalais yi mooy li xew nii sénégal dama bëgg ngeen xam ne yoonu Macky Sall bu leen Macky Sall rëccee bu leen Macky Sall rëccee bu leen Macky Sall rëccee bu leen Macky Sall rëccee bu leen Macky Sall rëccee barke Seydou ni nga xam ne ñàkk nañ président Adama am na nit ñoo xam ne bu ceeb bi jaroon juróomi dërëm bii la ko biiru ko la ko jigéen lan yor suural leen yombut te ndox bu taawee ñu naan Macky Sall non non kii suñu borom mooy xool fi ko neex mu tànk ndox bu nu indoon fukki ndaraan ak juróom-ñaar ndox ba fa dee am na dëkk yoo xam ne dëkk ndox la am na nit ñoo xam ne ko la ko jigéen lañ yor suural leen yombut loolu lekk dañ koy sawaat duñu duñu suur ci àddinaam Macky Sall yoru defarul biir gas biir yàllaay gas biir yàllaay xool biir am na biir yoo xam ne suural leen du yomb loo wax ñu bi dafa seer ceeb bi dafa kii am na nit ñoo leen yombut Macky Sall gi def liggéeyam mi ngi liggéey te mi ngi liggéey noppi liggéey noppi gën jafe-jafe mais man xam nga lan moo gën a bon jeunesse dafa Sénégal dafa métti mais est-ce que président Macky Sall da lay bàyyi yow Pawlish Mbaye fekk la sa kër jël la yow naan la liggéey ngi kaay liggéey ñoo bëggut a def dara. mais ku bëgg xale yi xale yi xale yi day day day topp naar bi ba naar bi jeexal seen xaay. bëloo ñu sànni xeer. non naar bi day topp naar bi day topp. naar bi dañuy topp naar bi lay topp naar bi lay topp naar bi naar bi naar bi yóbbu jeexal seen xaay ñu ne kaay dem sànni ndey xeer sànni ndey xeer nga daw ñu toj osan bi naar bi daal al bu xanaa xamoo naar bi xanaa xamoo lu xale def naar bi ñoo leen ko defloo naar bi aadamoo naar bi sama koñ nii booy booy dana mel ne booy booy danoo mel ne barki alxuraanu kari booy fii booy bi day mel ne kuy aji mango huit heures lañuy ci naar bi toog ci keesu naar bi ne comb lu nu lu sàcc ci osan yi dem jaay ko demee naar bi buñ jeexalaatee ñu ne gars yi tey nag xeex amaat waaye ñu ne xeexi waat mais loolu dëkk bi nan lay doxee dëkk boo xam ne naar bi naar baa ngi jeexal xale xaalis yi man aadama ba naar bi jeexalee sama xaalis naa bàyyi naar bi mais tey jii nii ku mel ne Ousmane Sonko dafa waroon a jël maanaam responsable am daan ne xale yi kat bañ kenn ci xeex wut nu mu ko arrangé wala situation bi nu mu ko réglé. mais pas génn ay leen mooy téye bañ a xeex ñu ubbilee naar bi. leen ubbilee naar bi moom bu <laughs> xam ne état dafa garaaw état boo amul sànq xale yëpp lay ubbil bi. coxalee ko xale yi dañu bàyyi xeex de xale bi ñi xale yi lii lii xeexul leen de ay président leen de xëy na amul xaalis te xaalis dañ koy liggéey buñ jàppee naar buñ jeexalee yi dañuy dem xeexiwaat xale yi foofu lañ toll de moo tax ñu ngi dee rek Adama ñu ngi dee. non man moom gëm naa ne ñii nga xamante ni ñoo ànd ak Ousmane Sonko ànduñu ak Ousmane Sonko banque rek leen ci yóbbu pour ñuy xeex bi ñuy def nii li nga wax rek la ñàkk xaalis ñàkk xaalis te xale boo boo liggéeyul munoo munoo génn sa école rek bëgg ni da ngay da ngay ngay da ah, am liggéey far fas suñu borom sax mayee loolu munoo génn école am liggéey mun loolu mënut a nekk liggéey da ngay suñu borom da ngay joxe xaar ba am liggéey am nga ne liggéey da am suñu borom dimbal la mu nga jógee université bëgg am liggéey loolu mënut a nekk na xale yi ne xam ne àdduna jeexagul aadama ay xale yi ndaw lañ xoole sama xarit bi ah, liyom bi yàqu awram bi yàqu ndax ay xeex waaw dégg naa ko dégg nga koy lim dóor lakkari bu sa dóor kooku xamul d'accord na ne ci awra awra ko ko kole waaw kuy wax ne fi fi nga la ci suuf ñii danoo dof mun daal mun daal adama xalaat fii daal mais kii ne way bi ko ko yow dan dan fay di live pour ngeen wax seen xalaat kenn tëj ma ay soo wax leen li leen fi indi ngeen esar bi esar bi live amul kenn ko war dugg peut-être si la ñuy tàkkaale xale yi. non dëgg la non dafa am ay gel rek laay dugal gel yi demandé nii bëri nañ. non gel yi demandé dañoo a tàkk dañoo a tàkkaale xam nga ñu def nañu waxtaan li ñuy waxtaan pare ah. ah après ñu dugal leen. loo doon jël kenn rek après waxtaan. ah kii la. kati la cristal kati ñu ngi lay ziar. maa ngi de ziar Adamo. ça va loo bëggoon wax ci ziar Paulus ziar. ah en tout cas man moom je suis 100 pour cent Macky faxaluma Sonko parce que. dafa logique wul lu muy def dara logique waxu fi lu logique lu dul geen nit ñi duñu liggéey ah surtout ñoo xam na ni état joxu leen dépense du Sonko du mag yi dangay liggéey Sonko arrêté sa liggéey bi yépp doo mun a dem fenn doo bouger ndax da ngay ragal bouger ñu sànni la lacrymogène gatsa gatsa bi la war a bàyyi te dem wuy ji justice si si loo xam ne ni dëggu na mu daf lu lu lu raisonnable xale yi mër yi dafa bëri li mu raay dafa bëri xeex bi muy wate la daal non non neexuma parce que suñu doom yi duñ jàngi ñu nekk public yi duñu jàngi ndax xeex bi dëgg léegi nekk public yi kenn du dem jàng ndax xeex bi yow boo waree xëy liggéey doo liggéey yi ndax doo ñemee génn sa kër. xaar Saarata ak kii comme que Pawlish dem na TikTok gal général na ñëw. Saarata ñëw Saarata ñëw Saarata ñëw Saarata ak l'activiste. ok. Ah, léegi Kati euh, kontaan nañu wax nga dëgg de may naa rasul ñu ngi lay déglu. Adama maa ngi di wax ni que mu ngi delloo ci xel yi nga xam ne Sénégal ngi ci jàmm bu baax alhamdulilah aja yow la déglu di wax ni que Sénégal ñu ñoo ko moom te ku mënti demit dang ñu fi bàyyi dëgg la donc nañu rassembler suñu xol yi invité naa la l'activiste invité naa la yéen ñaar invité naa leen aja soxna si demal voilà ñu positif parce que tamit nit ki mënoo wax ni que danga bëgg emploi wala da bëgg da nga bëgg dara te doo def dara maanaam que yow jàngoo métier jàngoo école alors que yow da nga bëgg emploi loolu mënul nekk même beneen président bu fu nekkee sax te yow loolu tegoo ko ci yoon tu reviens par zéro donc ñoo xam ne ni que tamit jànguñu ñu dem xool am na ay formation yoo xam ne ni ANPEJ euh, dañuy may ay ay ay emp euh, jeunes des emplois yoo xam ne que dañuy ñëw dañuy dañuy ñëw pour chercher emploi dañuy dem ñu gëstu ñu demander dinañ am ay emploi yoo xam ne que dina leen a jariñ ëllëg mais du caagin ni que que tu vas yow da ngay am emploi déedéet. waaw da ngay dem nga jàng métier aussi parce que métier boo ko amulee kenn du la jël pour nga mën a liggéey pour nga mën a fayeeku loolu tamit nit ñi dañ ci war a xel ñu bàyyi yàq bi parce que yàq bi amuluñu benn njëriñ ndax tey jii ni ñu nekk ci terre bi di dem di dem di voyage di ñëw ñoom am nañu contentement boo xam ne ni que envers le président Macky donc loolu kenn mënu ko dindi ndax daana métti trop ñoo xam ne dañuy jugee ci ci kii yi di ñëw ville c'est trop compliqué léegi ñoo xam ne dañuy nekk Dakar sax pour dem biir Dakar ñom ñooñu ñooñu njëkk a yegg donc buñu leen yakal lo xamé ni ko ñom dañ ci bénéficier wu ñenn ñi soxal lay nduro nañ délo ci xel yi té xamné ñun suñu yoon nekk ci affaire bi ñu tok suñu kër yi man da loolu la am lu may wax di wax ni ko adamu kontaan na trop ci yow man mom président Macky Sall mo tax ma bëgg sama biir xol yàgg naa la suivre nak donc du courage té jëm bi ñi ak yow kontaan naa jërëjëf Galsen naka waay. naaj sa invité bi dafa dem Pawlish bëggoon naa ko fekk de. dëgg la waaw. temps yii temps yii waa Kër Macky Sall bëri nañ temps yii da de a bëri temps yii a occupé réseau yi quoi la xew. ah loolu la rek. waaw mais nag mais il faut ngeen xam nag si si si politique lañ nekk ah xam nga Sénégal tamit nooloo mën a parce que nag mënuñ nekk dans un. dafa dafa ndànk kan moo ngelaw li ci Fatou la laareen allo. yow laareen looy wax. Adamo. Wow. ci loo nekk. soxna yow mi yaa yor ngelaw li bu ñëwaatee naa la wàccee de sànq ba tey mag lay seetlu. est-ce que du ventilo bi. waaw kay nga nga ko kon. ventilo bi yow tamit. ah mu fixé ko. Mm. ci loo nekk. ah yaa ngi jàmm. ça va ah, ñu ngi lay déglu. waaw man Macky rek laay topp. waaw ah, looy wax ci lu xew tey ak caravane bi. waaw kéema man musu musuma koo supporter moo wax dëgg yàlla. Mm, lu waral lu mel noonu xeex bi muy wooteeg yooy waaw xeex bi chaque jour violence chaque jour violence loolu baaxul. dëgg la de. ngay woote jàmm. dëgg la de. jaamu moo gën loo gis ci àddina loolu mu bàyyi ay bi chaque jour kaay leen génn fii xeex muy ray lu doomu jaamu loolu c'est pas bon ak boobu bu ko dalee bu baax ci moom de ok soxna kontaan naa dégg nga princesse Ndiaye ñu ngi lay déglu. princesse Ndiaye princesse. allo. waaw. allo asalaamaaleykum. ça va la reine yaa ngi si jàmm. kooku Adamo. waaw man la waaw. sa rek. kontaan ci yow ak li ngay def. ak li ngay wax ci Ousmane Sonko. Ousmane Sonko bu nekk bu baax ma ko kontan nañ ci bu baax. yow li sa xalaat ci affaire bi ci li xew ak yeb. ah li xew ak yeb ci ma xalaat daal mooy. Hmm. ni mu bëgg a yoree réew kenn du ko yoree rew. dëgg la de. soo nee da nga jang. Ah. da nga wara yé xalé yi ba xalé yi uti carte yu ñu voté. la de. ndax man xalé yi yëpp nekk sama kër wër ma bëgg ko. kenn amu ci carte électeur ah. ñi fi am carte électeur ñëpp ñu jag ñi la ñu kenn amu ci carte moo tax bu ma leen ne am ngeen carte ñu ne déedéet du ma wax ak ñoom te li mu te li mu def ci xale yi mooy dar réew xamadi indiscipliné xale bu ci waxtaan waxu waxu indiscipliné boo ko nee koo faral mu ne Ousmane Sonko te kenn du ko yoree réew soo bëggee yor réew da ngay motiver les ñu ut carte lepp nga def ko pacifiquement ah mais lu jog xex lu jog xex tay ji yeb demb ba dama feba ndax sama dom ya nek Dakar di jang dama sax amone stress waye bañ ma nenañ ko nous dama da di wer fëlëj dama wer fëlëj parce que mom ni mu nara def du deug du yoon deuk dafa am loi waaw munoo ñoxor njaay ngay wax di wax di wax kenn mu deuk di wax wax wax wax wax wax waaw te moom cancer la mënta sax yor réew mi moom oo ni ko baa boobu diagnostiqué woon mooy dëgg moom oo la moom mënta yor réew mi moom ndox la waaw cancer nit lañu ñoo xam ne ay tuuxi doona rek la ñuy dugg bu ñu duggee ba mu baax dañuy indi galgal ndax lan du ñu déglu conseil te bu ñu dégluwul conseil dañuy dugg ci ay problème te même boo leen conseillé ñu dem ba ci biir dañuy daal di daal di yëg seen bopp fuuy daal di lay wor loolooy tax toujours ñoom seeni seeni vie di di difficile waaw di difficile li mu nekkee du dëgg du yoon waaw soo jotee ak saar mbir mi yow ak Adji Sarr la waaw yow ak Adji ñun waxuñu yaa def waxuñu defoo waaw mais nga may nit ñi jàmm bu ñu la woowee justice nga am grandeur dem yow yaa ngi bëgg a jiite réew mi yow boo dul dem wuy ji ëllëg ay nit boo jiitee réew mi nu ñuy wujjee anarchie boobu ba kañ reewande googu ba kañ indiscipline googu ba kañ caravane bu doon woote amu ci benn ah, amu waaw loolu fu mu ko teg fu mu ko teg yow ñu ne la demal tribunal demoo nga dem ba yow te te beneen affaire bu gën a graaw yow da nga mës a xeexee Dakar nga toog ba mu neex la nga dem làqu Ziguinchor ne fii moom ke du ma fi fekk ndax waa Ziguinchor kenn demul ñu des ah ñoom ñoo ko yor ah yooyu tribalisme boobu fu mu ko teg ah woon googu fu mu ko teg ñaata nit ñoo dee Dakar pour moom ñooñ dañoo dee Casamance pour moom ba muy wax loolu. waa ah, yëpp wor yooyu mooy lan. waa Ziguinchor ñoo ah. ñàkk fayda rek. ah soo ko deful leen dara loolu yaa ngi yaa ngi yaa ngi def distinction ci ci ci Ziguinchor ak Dakar te waa Dakar day yàgg nañoo xeex pour yow ñun daal dañoo sonn ci xeex yi xuloo yi. waaw politique politique normal nit ñi voté dem voté ku leen neex ku gagné ñu xam ne kii moo gagné. mais xeexuloo saaga xale yi réew xam xale bu réew ci kër rek Ousmane Sonko la faral ba ci sama doom yi ñi fiy tontu insolemment yëpp Ousmane Sonko lañ faral waaye fi lañ may fekk dañu réew ba dof dafay loolu dëgg te amuñu sax carte vote ñun ñi am carte vote ne nuus yaru ah ñoom amuñu carte utiwuñu carte di def ji banditisme réew xam di indiscipliné sëriñ bu wax nga tontu ko ah tey jii benn imam wax Ousmane gen na bu doon sans imam benn imam moo ciy wax lii li mu wax dara ci dëgg fu mu ko teg booy jiite da ngay jiite ak yar ak mais doo jiitee nu mu la neex ah man aw maag moom benn problème mais ay façon wam la war a xoolaat waaw ay façon wam da ko war a xoolaat ndax moom nekk président am ca kanam ndax dafa dafa desee ñor dafa desee ñor foog ñu xaar ba ci kanam mu jàng politique politique dañ koy jàng doo ñëw rek di tëlax tëlax la neex bi waaye yow maa ngi lay gërëm la taa yi moom yaa ngi def yu baax yaa ngi leeral bu baax jërëjëf jërëjëf <laughs> yaa si jàmm. waaw ñu ngi si jàmm maam Diarra. avec Kafa. Adamo. waaw. maa ngi leen di ziare Adamo. waaw. dëgg la kenn ku nekk da ngay wax sa xalaat. waaw. mais dafa am loo xamante ni dafa mel ni dafa am nit ñoo xam ne dañ koo xamu gis na dafa avant Sonko di ñëw xeex yi di am dafa am lu fi jaaroon. Karim Wade daf fi jaaroon. Khalifa sal jaar fi bari na ñuy xeex ñoo xamante ni xaaj bi xeexuñu ngir Sonko dañuy xeex ngir li leen metti ci seenu réew parce que mënoo ne président la nga taxaw ni ñaari mandat lay am ñaari mandat yi jeex nga bëgg a yóotu beneen premièrement wàcc sa yoon mënul passé lool léegi nag nit ñi li leen di xeex mooy la daloon so Karim dal Khalifa Sall moom lañ nangoo te mu dal ci Sonko parce que bu fekkoon ni dossier bu normal la bu yenu maanaa kenn xeex mais atte bi ñuy atte ci loo xamante ni ñëpp xam nañ ne ñi ci koo xam ne nit nga tey xalaat xam nga ne dossier bi dossier vide la bëgg ci tëj Sonko wala ñu bëgg ko cee sonal loolu la Sénégalais yi di xeex. léegi soxna si dossier bu fi dëkkee jërul daw man kaa def muy ji bu dee dafa fi dëkkee jërul daw ak daw euh, non non. non non Adama daw parce que nit da ngay di comme yow da nga nekk Dakar may ñu la jàmm may sang njaboot sonn am nga droit bi fa nga toog fa mm. yaa ngi may dégg waaw yow ak ni mel ah siif ak ni mel violé ak ni mel ñu la koy def ngay tal ay rew léegi dama laa bëgg la laaj benn demande yow da nga ne Ousmane Sonko taxul ngay xeex jeunesse bee tax ngeen di xeex ak seen Sénégal ak seen sénégal ëllëg du dëgg. dëgg la. ok léegi xam nga tey jii lépp nee na tekk Ousmane Sonko buñ ko deful dara lépp danaan tekk lan moo tax doo jël say responsabilité nga ànd ak sa famille andak say dom andak sa dem jeli ji Macky Sall ca pale ba wala nga dem xex lutax ngay xaar autorisation bu Ousmane Sonko pour mu jox len ko genn meuna genn yow la koy laaj lolu nga ne ñu jox ko lan autorisation. dama la wax deg ko de bul dof doflu critique bu dee comprendre demande bi laajalaat ma ko dabo ñu abord ca pale ba non mom comprendre lu may xarit gi ni deggu ma de kapo est do ko bay mo xalaatam rek wa wax sa xalaat ko mo non la ko après wax sa xalaat xam nga yow yow yow bo man fi may waxee ak fi ngay waxee dafa dafa bokk ah, gis nga nit ñi ak ñaa lo xamanteni du deug wa lu du deug gi ci bopam tañ beut ko ba ñu jël ko bëgg ko def deug lool askan wi nangotul ku man nday am nday kumba amul nday mo jeex ci réew mi mo dëgg la. parce que ni koo xam ne yow dang ni dan dan la violé nga taxaw ni yow bi ñu lay violé kenn ki nekkoon ci sa wet yaa ko piis ni ko génnal waaye yow kun koy ragal ñu tëddale looy génnee pour wet ak yeneen ak yeneen yoo xam ne Adamo dégg ko ay audio. li man daal li mooy wuyu ma askan bi boppam ñoo nanguut la woon woon ni nax la woon woon ni nax Ousmane Sonko moo katt wala kattul man dama naan Ousmane Sonko katt na yow nga ne kattul léegi nag pour katt gi mën a leer non non non taxawal Adama Adama pardon. waaw Adama Sonko. waaw góor la da yëg li góor ñiy yëg bu ko neexee ku ko ubbil mu katt yaa ngi may dégg ah, ah, ah. ñun toppuñu Ousmane Sonko mu kat ma déglu ma déglu waaw may ma eggale dama la koy ñaan ñun toppuñu Ousmane Sonko pour mu kat na wala katut Ousmane Sonko góor la day yëg boppam li muy yëg ku ko ubbil lu roode lu toll ni camion day dugal bu ko neexee toppiwuñ ko loolu toppuñu ko pour ilimaan toppuñu ko pour xut bi sama dañ ko topp pour mu sensé ni suñu réew mi mais katt naa katu su ko neexee katt ba doyal parce que ñu ko gën a fooran di kat débat bi mën na bañ a nag a rafet sax ay kàtt yi moom Adama yow doo meraam jaara jaara aussi foog kapp bi doo meraam yow léegi jaara am na solo waaw demal demal après waaw ma ñëw na ngeen def Adama sant yow jaara gani ñaan ñi ngi lay déglu waaw <laughs> de Adama tey sama xol bi daa mel ni glace ñun yow topp dëgg neexut ak Macky Sonko su ton kon du ne du mën a jàkkaarloog Adji saar kon li tax muy daw ku moom xar bi nga bàyyi ko. loolu ba jaaxal de. <laughs> te ku ñuy jiin damm nag soo seeloo yéenu li yaa ko def. dëgg la de. dëgg neexut. Hmm. ki nga xam ne kaale ñu xeex dañ may faagaagal kooku kan moo koy jox suñu réew mi ñu xamul ñu dara kooku ñooy soo image na ñi nga xam ne ñoo faral Sonko amuñu sax carte électeur yooyu bëri amuñu ko moom wax dëgg yàlla. ñoom ay sonko sonko gis nga Macky Sall ak organiser di liggéey. te kenn mësu koo dégg suñu ñàkk fayda Macky Sall lu mu fi def kenn defagu ko fi nañu wax ta dee ba tey Sonko mooy dugg di wax waaye ba tey Macky Sall kenn dégg ko mu wax. non non lii du dossier Macky Sall yoonu Macky nekku ci lii. yoonu Macky nekku si mais ñi dañuy nekk di wax naan ay Sonko dafa bëgg a jiite suñu réew pour defar suñu réew ak yooyu Sonko lan la mën a defar ki nga xam ne chaque jour ay violence ngay woote. dëgg la. lan la mun a si réew mi. ok mais soxna xam nga sama problème mooy yéen bay euh, ah, ma wax parce que sama mooy yéen Sénégal yi ñun dama yàq dañoo am problème ka ñun tey jii suñu demee ba woote ba suñu manifestation rek dañoo war a rey nit yaa am problème nit ki amul droit woote euh, manifestation néew ko da nga yàgg nañ fi woote manifestation ni ngeen waxee manifestation nit ay nit dañoo war a faat loolu war leen xalaat ngeen war a bàyyi quoi kenn ki ne am nga droit woote manifestation nga teg si yoon comprendre nga soo amee autorisation nga dem marche mais ni ngeen di wax ni mooy comme si ku gën dañ laa war a rey lu tax ñuy reyee léegi te yéen yéen la plupart néew leen Sénégal Europe ngeen nekk te saako yéen a ngi manifesté wu te duñ kenn du fa dee mais si ngeen jugee rek ngeen ne waaw day nit dañuy dee dañuy dee kenn warut a kenn parce que ji nga ji nga ñu nekk si nguur gi dañ fiy jugee ëllëg ay opposant la ñuy nekk. moo tax nit su looy wax da nga koy xool bu baax a baax mais sama problème mooy Sénégal lu ko yàq mooy farfarloo Sonko tey amutoon droit dëgg la amutoon droit euh, def caravane am parce que dafa doon bind autorisation ñaan ñu may ko ko suñ ko ko mayut amul droit boobu parce que état lañ nekk. mais aussi da ngeen da koy nangul da ngeen koy nangul leen moom nag am na droit su xoolee benn injustice bi ñu koy teg. man na woote kat ne gars yi leen jàppale loolu am na droit Macky Sall defoon nag en 2012. génn leen dañu maa bëgg a faagaagal loolu rek la fi woote. waaw waaw mais am na trop mais am na laal doon même ku laal doon bàyyi ñaari jéeg ne ah. non man bàyyi ñaari jéeg ne waaw Adja ñëwal. Euh, du bay ñaar jéegi macha allah information yi nu muy jaalee am na solo bu baax. waaw xanaa li ci euh, Sonko bi. waaw nu mu defee. yaa ngi si jàmm noonu maa nekk si live moo tax lépp gul. ñëwal. waaw xanaa dikkaat ci Sonko bi nag bu ñu xoolee Sonko euh, moom problème bi yëpp. mu démarré ci la dafa nekk fonction ah. publique ñu jëlee ko fa. rancune boobu la yor ba ñëw déposé nekk opposant. waaw après naa la woo. léegi moom wala